jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee saa su nekk rek noonu lañ ko defaatee ñu ànd seeg euh, Assane production mu tëgg làmb la 4 incha allah diggante bébé Diène ak ki nga xamante ne mooy euh, Gàkku 2 booy Dakar war cee bëre ak Ronaldinho drapeau bi euh, nekk ki nga xamante ne mooy Niass Teranga le jeune Mara Mara bi nga xamante ne nee nañ lu mu bindul baaxul mu jël drapeau bi indil ko ki nga xamante ne mooy suñu papa suñu nijaay. Euh, suñu lépp mooy ah, muy Djibi Sarr responsable politique Linguère euh, moom lañ ko indil tey fii ci këram ñu fas ne jox ki nga xamante ne mooy Niass Teranga kàddu gi mu nuyoo ñu jox euh, Djibi mu nuyoo jox soxna si su ko defee ñu wéyal waxtaan bi Niass maa ngi lay nuyu di la si ñu fay nuyu ahlu làmb yëpp di jaale Serigne Moon ñaam génn di jaale ahlu làmb yëpp di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu Djibi Sarr Ndiaye responsable politique nuyu Bawol nga xam ne moom moo jël drapeau bi tuddee ñu ko mbégte gi ñu am nag ba indi ko ci moom daa def loo xam ne neente ci yoonu politique suñu dëkk suñu village ñu am ci moom mbekti moo tax ñu jël drapeau bi to delloowaat ko teg ko lépp ci loxoom. seen village mooy fan. Gassé ñun amuñu courant moom moo ñu may courant. moo ñu may solaire bokk ñuy taal moo ñu may ndox moom Jibi Njaay ñu jël suñu bopp tamit boole ko ak moom man du ma yëngu ci politique mais dama jël sama bopp boole ko ak moom ngir mbégte googu ma am ci moom jël lépp teg ko ci loxoom moom Jibi Njaay mi parce que tamit ku ne xam na ne Gase dafa nekk dëkk bu esclave moom mu dugal fa loolu lépp kon moom Jibi mi am nañ ci moom mbégte kontaan nañ ci moom moom moo tax ñu jël drapeau bi nag jël drapeau lamb bi ñëw tegaat ko ci loxoom bootal ko ko mu nekk drapeau waaw waaw ñu ngi lay nuyu di la ngi lay fay soxna si. waaw xanaa di voilà euh, d'abord di profito di nuyu ñi fi taw ñëpp di leen gërëm di leen sant ci teewaay bii li ko waral nag mooy suñu rakk ji di Niass ñu bokk dëkk Jolof kóllëreem di Assane bu Baol Production tëgg làmb ju mag tuddee ko ko làmb ji di la 11 février Ronaldinho war ko bëre ak Boy Dakar bi mu jegee loolu mu ne buñ ma tuddee làmb dinaa ko delloo Jolof delloo Jolof gi nag yàlla def mu xalaat ma ci maam ci mbégte di ko ci sant di ko gërëm bu baax ngir kóllëre gi ñu am ak ni mu ko waxee sànq seen waa dëkk muy waa gase di village bu nekk ci département de Linguère muy dëkk bu am solo ci wàllu politik dëkk bu am solo ci wàllu diine waaye également dëkk bu am solo ci wàllu koom-koom ci biir Jolof mbégte moomu nekk moo tax man ma dagale samay nit xëy na fii Ndakaar la dagale fi nit yombul bu doon Jolof peut-être la fay lay gën a xumu waaye comme déplacement day diis dem ba Linguère di fa def remise drapeau ma ne ko nañ ko def fii rek Dakar dagale suñuy am di jàmm yi fi nekk mu waral mbooloo mii nekk fi tey teew fi di leen delluwaat ngërëm di leen santaat bu baax ah, li ki des nag mooy xanaa di ko ñaanal yàlla bésam bi yàlla defal ko ci ndam ndam lu rëy ndamal bés bi nag ndamal lam mooy réesitu bés bi am mobilisation xumb mbër yi aussi bëri nañu war a bëri te am naa ci yaakaar loolu bu ñu tey defee rek effectivement mooy lamb ji réussir na ñas ah, Niass maa ngi lay sant bu baax di di la santale également Assane Ndiaye ndax kooku aussi am na fu mu la teg ndax lu toll làmb ju toll nii nga tëgg ko sa xel dem ki nit nga tuddee ko ko kooku am na fi mu la teg ñu la koy santale bu baax di la sant sama kent ak bopp moo la tuddee sa làmb nga jël sa làmb yore ko ndax mën nga ko waaye bëgg ci boole jolof moo tax nga tànn ma ci xalaat ma ci indil ma lii fii muy remise drapeau bii nga xam ne moom lañuy ñuy bëre ñu jël ko teg ko ci seen loxo. tey nag li tax xëy na bés bu xumbul torop dafa tombeek tiis ci làmb ji muy génn àdduna ak sëñ Modou Niang ñu koy jaal ay mbokkam yëpp di ko ñaanal yàlla yàlla xore ko na xëy na lii sax ma na ñàkk waaye dafa fekk ñu jàpp ko bu yàgg ba jël ko yëgale te xam nga boo ay pare fommaat ko yombul moo tax ñu te tenir bés bii waaye moo taxit it euh, Assane teewul ndax mi ngi ci dëj boobu di dëju sëñ Modou Niang bi waaye ñun tamit buñ ko mënoon xëy na buñ ko mënta demee tamit danañ toog fii naqarlu ko waaye nag lii la yàlla dogal ñu di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko aljanna di gërëmaat ñi fi nekk ñëpp di ñaan également làmb ñu ñàgg ceeg jàmm bëre ko jàmm waa ñu am benn problème taam nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. gàddu la mos ngaa dem làmb man nag malheureusement <laughs> mos naa dem làmb mais yàgg na. yàgg kan la woon. Euh, Bombardier la woon. c'est la première fois dafa naa ma dem làmb te dafa naa benn yoon boobu également la la la mos a dem làmb mais terewul nag bëgg naa làmb xam nga télé yi moo tax également nit ñi duñu sawar di déplacé wu di seet làmb xëy na boo toogee ci télé bi sax li ngay gis ci làmb ji ñu nekk ci stade bi duñ gis lépp. Bombardier je sais même plus xam yàgg na trop trop trop. amateur nga woon wala bombardier nga seetaani woon koo seetaani. bombardier laa seetaani woon effectivement ah. waaw. <laughs> loo ndam lañ fa jëlee rek comme d'habitude ah waaw. <laughs> ba sa xol bi ni nga demee. Ah? bi nga demee gis stade bi. Mhm. kontaanoon nga nga bàyyi lépp bàyyi sa yitte dem nañ trop ndax am ambiance bi rek. làmb de loo xam ne dafa bëri ambiance dafa ànd ak culture suñ culture réew. boo demee ba toog ba gis leen nga xam ne Afrique am na lu bëri lu yeneen réew yu ñàkk xanaa ñu war ko gën a fullaal rek gën ci jàpp xam ne làmb su weesoo sport sport bi ñu gis dafa ànd culture tax la fay xew lépp moo tax toujours euh, gouvernement bi xam na ko xam ne ko trop ministre de sports xam na ko moo tax ñu jël làmb gi teg ko foo xam ne daanaka teguñ ko fenn ci sport sport bi dañ ko jëggaani sport boo fi jël ci Sénégal dañ ko jëggaani ba mu des làmb làmb mooy suñu sport national euh, ñi am jotu ak mën-mënu seetaan ko ñi ngi fay dem ñi ko ñi demul tamit da ngeen leen biir ne làmb ñëpp ko ñi demul ci làmb dinañ ci télé yi toog di xaar. le 11 ci nan lañ la mën a xaaree ambiance bi nga ànd ak comme tey le 11 xewagul li fi xew nii man bi ma ñëwee sax damaa jaaxle pour ma làmb ji lañ ci <laughs> waaw le 11 nag moom laa doon expliquer la Ngas Teranga dafa tombeek suñ beneen bés ci jolof ñu koy métti lu trop nag ndax làmb ji duñ sañoon fekkee ko def délégation gun gunge ñas waaye nag dana am ñi des dakaar ñi des dakaar ñoom dañ leen organiser ba nga xam ne kenn du leen jëtu ci làmb ji man tam dama am benn final ñu def final super coupe ñu koy def Linguère depuis dix ans maay parrain bi maa koy présider ñu jàpp ko le onze fam mën nañ ko sax lu bari ndaxte le 4 lañ ko jàppoon mu jege trop lu Porokhane gi ñu puusaat ko ba le 11 donc te ñëpp engagé ci pare fa maat ko dafay xaw a jafe dafay xaw a métti moo tax la 11 Jolof la ñuy fekk waaye ñi nekk Ndakaaru incha allah danañ teew ci bés bi waaw. sànq booy Dakar nee na dafa bëgg ku leen jàppale ci bolo gi mën nañ xaar loolu. ku leen jàppale ci incha allah dinañ ki def liñ mën. parce que wax na dëgg am nga mbër ñi ko féete ginnaaw di dafa bëri ku ci nekk booy bëre ji bëgg na ñu ñoo la bëgg bëgg la gunge te parfois euh, euh, transport wala billet entrée mën na leen gàllankoor moo tax ñoom ñu am sas bu rëy mooy jàppale seeni fans bañ leen bañ leen bañ ma leen a gunge ci làmb yooyu donc loolu effectivement li ma wax wax ju am solo la Euh, malheureusement Sénégal moo di ma ne ku sangoon booy bëree sa làmb xumb waaye li koy xumbal li ci ëpp yaa koy def yaa koy def ci ñaari fànn fànn bu njëkk bi mooy nit ñi xam la ci fulla ak fayda waaye beneen fànn bi aussi mooy dagale si nit ànd ak ñoom. soxna si lay nuyu di la ziar. Ah, soxna si maa ngi lay nuyu di la di delloo ziar. maa ngi sant yàlla bu wér. tey ñu ñëw indi leen li nga xamante ne mooy drapeau Niass Téranga làmb noo koy dundee mos nga dem stade mosoo dem stade tey nga toog waa axlu làmb seet la nan la def ci yow. waaw asalaamaaleykum donc maa ngi commencé di wax bisimilah rahmaani rahim di ñaanal Niass Téranga drapeau bi ñu ko tuddee yàlla na fa dem si bisimilah rahmaani rahim yàlla nag fa yàlla defal ndam ndamu làmb nag. mobilisation la bëri bëri ko ci jàmm ak salaam ñëpp ñibbiwaat si jàmm ak salaam lim ciy séentu yàlla naka suñu borom defal ci daraja Rasulullah ci barke alxuraanul karim donc lu tal na loolu suñ ko indee ba suñu biir kër dañ ci am mbégte mu rëy parce que ni borom kër gi waxee léegi mënoon na jël yóbbu ko feneen waaye li tax mu tànn jëmmam ji xëy na moom xam na ko ndaxte tey nee na dafay ñëw delloo circuit jukkal ci ay assistance yoo xamante ne que moom yóbbu na ko ci dëkk ba foo xamante ne que euh, sore na nga yóbbu fa courant yóbbu fa ay antenne taxawu fa dëkk taxawu fa ña fa dëkk ci seen ay soxla rafet na ñoom tey bu ñu amee bés delloo si la ka donc ñas ñi ngi lay sant di la gërëm aussi te di la di la di la ñaanal kontaan ci loolu parce que comme ni mu ko waxee léegi làmb mooy suñu mooy si li nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp moom rek la ñu moom xam naa nag moom li ma si naqari rek mooy li ma nar a fekk jolof ndax xam naa kon su ma ànd ak sama waa Pikine yii dina dina dina neex lool ndax xam naa su boobaa dinañ fa ndaw rabin dinañ fa tamba dinañ fa def lam fa war waaye nag du ci yàq dara ndax man même su fi nekkul ñoom ñii fu ñu nekk rek mel na na maa ngi fa te xam naa ñoom déjà sas naa leen ka donc yow mi wax mobilisation ñoom ñii dinañ leen jox dara indil ay kaar incha allah dinañ ñëw jox leen ay ticket ñu ñëw jàpp si bés waaw mos ngaa dem làmb yow. waaw mës naa fa dem nag benn yoon bi mu waxee ñoo fa demoon ñoo fa àndoon. da ngeen demoon seen bër. dañ demoon supporter ji seetaanaale ba pare dañ fa am aussi xarit muy sëñ Xaadim Xaadim Samb mu invité woon ñu waxoon nañ ñëw seetaan si si làmb ji waa Père Xaadim. Mhm. kon la 11 ndeysaan du leen fi fekk rum xumbaay beeg mumbaay bi. waaw duñ fi fekk waaye dina mel ne dinañ fi fekk parce que ñiñ fiy bàyyi xam naa dinañ ko matale. dinañ ko matale mais xam nga aussi ak int euh, gi ni mu demee dara dootul réeréet ñun même fu ñu mënti nekk aussi à distance dinañ ko xam li ci gën a am solo daal mooy li nga xamante ne que war nañ fa ci cër bi nga xam ne cëralee nañ ko ñu matalee ko fa si jàppale leen si nit ñi ñëw wuy sa leen et puis si ñaanal leen. boo ñaax ak lu làmb loo xanaa ñu gën a ñu gën ko ñu gën a ko def comme affaire Sénégal ñu xamante ne que làmb sport la. donc dañ fi war a gën a am un esprit sportif xam ni dina am un vainqueur dina am un vaincu li ñu war a éviter tey mooy suñ nee làmb rek nit ñi da ngay ragal sax dem seetaani ndax da nga naan dafa am violence. donc je pense que s'il y un appel bu ñuy def si ñi nga xam ne ñooy bëri wala ñooy seetaan si ñu xam ni foo la déjà moom moo jiitu sport la. vraiment wàññi violence parce que su violence bi wàññikoon nit ñi dinañ gën a sawar pour ñëw seetaan si ndax yenn saa nga bëgg dem sax mais da ngay ragal ndax jour bu làmb amee sax da ngay gaaw ñu sa kër donc suñu amoon daal appel ci lu jëm si mbiru loolu lay doon. merci beaucoup. merci. maa ngi lay ziar. waaw ah, delloo ci loo ne. waaw lu ñu nekk rek mooy entraînement gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant kilifa yu fi toog yëpp di sant caméraman yi tamit aussi. waaw di la ñaanal yi tamit xam nga ñaanal ñëpp yal na yàlla bàyyi fii lu yàgg yàgg may leen wér gu yaram su bak Seydina Mohamed di ñaanal sama yaay ak sama pap bu baax a baax a baax di ñaanal sama yaay di ñaanal sama yaay di sama yaay. sa adversaire tax ñëw. waaw sama xaw ma lu tax ñëwul xaw ma lu ko téye mais yàlla na doon jàmm rek pour bis bi ñëw ma accomplir ko daan ko jël bu rëy waaw dellu NCB. der ngay bëreel de der. waaw mën naa gën a nekk der man la doomu Saalum bi doomu Ndakaaru jël job fukki penc ak ñaari Mm-hmm. tey nga ñëw ci remise de drapeau bi moom nag ñëwul comme li nga wax mu nekkee lu ko mënti yàlla doon jàmm nga ànd ak Niass Teranga muy seen mm-hmm. ngeen ñëw fii mm-hmm. ban yëg-yëg nga am c'est pas la première fois nga ñëw remise de drapeau. instant yaram dafay dafay daw ba léegi nii. lan moo tax. parce que kilifa rek ñoo fi toog dañoo bàyyi seen yitte. parce que adduna yëg-yëg moo am solo. parce que kilifa gi toog fii nii suñ ko yëgutoon amaana lii yëpp du doon am te tamit amaana tam kii su ñëwee dakay koy lu mais defu ko. parce que àdduna amul solo mais ñoo ngi koy remercier si loolu bu baax a baax a baax parce que kilifa kilifa rek la mën a doon kenn mënu ko wàccee waaw di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak soxnaam ak njabootam yëpp si barke Seydina Mohamed bis bu ñu jublu mooy la onze yàlla mottali ko si jàmm ñu dem si jàmm ñib si jàmm yàlla may ma ndam ma indiwaat drapeau ba fii nii incha allahu rabbi waaw loo koy wax ci làmb ji waaw làmb ji di ko wax rek mu jàppale ñu ñun ay jeunes lañ dafa am ñu bëri ñu topp suñu gannaaw am na ñoo xamante seen loxo jotul seen gannaaw waaw lu mu bon bon bon bon bëgg nañ benn bloc boo xamante ne war nañ ko mën a jox suñu fans yi ñu ñëw leneen ñu jéem a xool nuñ koy euh, débrouiller ak ñeneen ñi ñëw affaire yi tar na trop si ñun parce que ñun dañuy fay suñu reliquat yëpp dañ koy jëlaat dugal ko si biir dañuy toog am na ñoo xam ne dañuy ñëw suñu kër pour ñu jàppale leen dañuy jeexal tak waaw parce que ñun ay ndaw lañ sàcc ñu agressé wu ñu naanu ñu demuñu fenn waaw te ñun tamit yéen la ñu am si réew mi waaw ngeen jàppale ñu bu baax a baax ñun jeunes yi waaw lu la loo xam ne mu koy dégg. nee na dëkk dëkkam bi mu dëkk moo fa def courant tey bu leeree moom la tey tamit bëgg nga làmp yi tàkk sa côté. waaw bëgg nañ làmp yi tàkk fépp. billaay walaay tey amaana mun na yàlla mun na ko def président wala leneen ak leneen yokk graatam ñoo ngi ko koy ñaanal waaw te geste bu muy def geste noble la te yëg-yëg la mooy lu may wax léegi rek foo jógee soo ko yëgul rek zéro la mais dañ ko waa réew waa fu mu waa goxam ñu ngi koy sant bu baax ñoo ngi koy gërëm. waaw waa Linguère ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy gërëm na gën a jàpp gën a góor góorgóorlu mu xamante ne am na lu bëri loo xamante ne moo ngi koy xaar gis nga famille yu ko topp yëpp pour politique xam nga ñoom doxuñu si tànk caaxaan doxuñu tànk ñàkk fu lu leen ñor mooy dimbale seen njaboot ak seen famille loolu rek moo leen ñor moom tamit na gën a fas nga mu xamante ne am na lu bari lu koy xaar donte mag la mais am na responsabilité moo xamante ne mun na dem ba si président de la république pour mu gën a yokk doole pour mu mun a mun a gën a mun a jàppale suñu yaay yi waaw. looy wax Niass. waaw Niass tamit di ko remercier bu baax a baax moom tamit lu mu def rafet na trop mu xamante ne moom am na mag boo xamante ne ñëw na delloo ko njukkal loolu dañ ko si remercier bu baax a baax. làmb ji daal le 11 lu ma métti rek mooy suñu kilifa gi nga xamante ne fële la koy fekk Linguère waaw mais yàlla baax na. yoon yemul ci benn benn. waaw yàlla na yàlla defal woote. waaw maa ngi woo sama yaay Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille et du genre et protection des enfants sama papa Djibril Wade Jean Baptiste Diouf maa ngi woo Aline si encore mu jàppal ci combat bu baax a baax maa ngi woo waa États-Unis sama euh, papa bu nekk foofu seex na maa ngi woo waa Italie Abdou ku si mel ni euh, sang ak yanka waaw bàyyiwuma kenn képp koo xamante mu ngi tiitaroo booy Dakar rek maa lay woo si combat waa marché ngelaw ruqu ganaar waa Kasor ruqu ganaar yi tamit maa leen di bu baax a baax a baax maa ngi wow waa Kër Madiabel Lamaram Pane Sade Njawra Alkaari Jilaxaar ah maa ngi wow waa Koutal Kër Omar Bambar Kër Omar Pël Thiamène Koylal Moussa Boye Latmengue Dagga bàyyiwuma leen waa Casamance Tangori eh. maa leen di woo bu baax a baax a baax sëñ Ba Faye sëñ Amat Fall bàyyiwuma leen sama doom nday ñaari yaar eh. maa ngi koy woo si combat bi bu baax mu jàpp si waaw waa Kër Madiabel bàyyiwuma leen benn yoon sama grand mas maa ngi koy woo bu baax a baax a ak sama mag pël nekkoon signature rek waaw sama mag pël maa <laughs> waaw soxna si ñu ngi jaar bu baax a baax. tur bi. man Ibrahima Sayer Ndiaye laa tudd. waaw di rak ci la directeur général Djibi Saare Ndiaye le directeur sortant Djibi Saare Ndiaye. Euh, tey euh, ñu tuddee ñas drapeau mu delloo bu mbatt ca daala mu ñëw indil ko drapeau bi loolu nan la def ci yow. waa ak ñëw gane waaw loolu rëy la loolu rëy la lu lu mag la ci ñun ñi nga xam ne ñooy jolof jolof. waaye nag du loo xam ne lii luy lu ñuy jaaxal la lu ñuy yéem ndax ñas day suñu rakk dëkk bee mu dëkk di gase ñu nag moom ñoo ko bokk baayam ak nii baay ñoo doon ànd muy suñu rakk ju baax baax ba yegg ci ñu naan ko ñas teraanga moom teraanga indil ko magam donc lu rafet la def loo xam ne ni ñun askanu Jolof yëpp dañ koy sago di ko tiituroo ndax ki ko defal tamit dafa ko defal mag ju baax sérieusement magam la te li may waxit lu ma xam la magam ju baax la indil teraanga ñu ko ci sant moom di sant aussi ñi ko jox teraanga jooju ndax tundee làmb tànneef la ñi ñuy jël di leen tuddee ay làmb ay tànneef lañ buñ ko tànnee moom mu tànn keneen ne ko kaay teraanga jee nga def sama dëkk bi ñu bokk ma wane la loolu dañ ko ci gërëm bu baax di ko sant. kon maanaam drapeau bi kontaan ngeen ci ba yegg ci lool. kontaan nañ ci kontaan nañ ci lool kontaan nañ ci lim ko defal jibi kontaan nañ ci ci teewaayu jabaram ndax soxna si ngay gis jëmm ji ci wetam fu jëkkëram defee teraanga jolof moom mi def na ko fa dëkk boobu di gasee moom mii def na ci loxoom moom soxna si donc teraanga ju mag la ju ñu defal defal ko tamit nag. parce que jibi day politique suñ ko soxlaa politique lañ ko soxlaa dañ ko ko defal defal ko ko képp kuy responsable politique ci département de Linguère defal ko képp koo xamante ni tamit yaa ngi safoo le président Macky Sall ndax Macky moo wane jibi lam ba mu ko wanee nag lam ko wanee da ko mati directeur général de l'ANER mu yor ko fukki at maa ngi laaj sax ndax baaturul ay record ndax loolu fekkee ne am na bëriwul benn directeur général ñu nommé la téye la fukki at ca post ba nga nekk ngay génn liggéey ba àdduna bi yëpp xam na liggéey nga Sénégal gi yëpp nga leeral ko te amul dara luñ lay toppee wala luñ lay ŋàññee damay wax ne moom marque de fabrique am mooy équilibre bi nga xam ne da ko indi dans la gestion de l'État ndax tey jii nii moo la ñuy toll naan ñii la ko defal collectivité locale bi wala bii mais ñëpp opposition ak gouvernement ñëpp ànd nañ wane na ji bi dafa tëddee njaaxaanaay ci gestion bi nga xam ne moom la ko président jërëjëf jërëjëf merci beaucoup nee na da ngaa delloo mbattu ca ndaala tey booy tëj dernière kàddu bi wàccaay wàccaay bi arène ba diggante booy Dakar ak ki nga xamante ne mooy Ronaldinho noo koy waajee mbëri ci lan nga leen di jàppale waaw ni ñu koy waajee mooy mobiliser rek delloo njukkal Assane moom tamit pour stade bi fees bis bi réussir ñu fexe stade bi fees làmb ji réussir loolu daal dinañ ci waaj moom bu baax mbëri mbëri bëri pour ñu jàppale mbëri waaw loolu dinañ ci def liñ man duñ dik kenn nag mais dinañ def liñ man parce que ñun tamit dañoo am bés comme seen bés waaye bés seen bés mbëri nañ leen jàppale ah ki nga xam ne nag moom tamit moo jël drapeau bi bu boobaa bu ñëwee dinañ ko jàppale moom tamit comme niñ ko mën a jàppale mais ah, ki jël drapeau bi ki nga xam ne yàlla may na ko ndam ñi ngi ñaan daal ya làmb ji réussir mais damay wàññeekuwaat rek di waxaat tuuti ci Jibi Njaay ak koddu gise mi nga xam ne moom moo toog ci wetam xëy na góor bu mënee leen la jëg jigéen daf ko jàppale te ñun dañoo yor ay mbootaay suñu village jigéen dañ fa nekk te daf leen di jàppale moom it da leen di jàppale loolu du lu ndaw yooyu gest yooyu nag moom moo tax ñi jël drapeau bi jox ko waaw geste noble la te ñun suñu village xamuñu amuñu mais xamuñu loo xam ne niente amuñu koo xam ne neente dañuy jàppale moom mu ñëw jàppale ñu comme daf ñoo jàppale nag ñun dañ koy wane daf ñuy jàppale moom la lañ xam ak ku leen yëg léegi nag loolu moo tax ñu ñëw delloo si ko wane ko ne moom jàppale na waa Gase moom Jibi Saara jàppale na Gase ba Gase xam ko ndax man dama jóge gàmm bi benn jours même jour bi ma ñëw fekk fa ñoo xam ne dañu fa daje moom moo leen fay ebal délégation booba ñu ngi am jafe-jafe ndox. toog 14 jours yoo xam ne suñ forage bi amul ndox mu jël xaalis bu bëri jàppale ñu ba ndox mi ba dëkk ba di naan loolu moo ko def ñu demaat mu jëlaat ay poto defal ñu poto solaire yoo xam ne nii dëkk ba mu ngi leer nañ loo gis foofu muy leer ci biir gase lu nekkul jant moom moo ko fa def kon jibi jàppale na gase kon jibi su ma amee cofeel boo xam ne dama koy def ci politique di jàppale nit en tant que jeune mara jibi laa koy delloo mosuma dugal sama loxo ci politique mais geste boobu moo ma amatiré ba ma dugg ci politique di ko jàppale. waaw ñu ngi tàggatoo nag di di leen sant yéen ñëpp di jaalewaat ahlu làmb di sant suñu xarit xaadim xaadim am parce que ku sonn ci bis bi la di la sant yow it pël waaye di sant bawol moom mi nga xam ne moom tamit moo jël bis bi tuddee ñu ko di woo suñ benn xarit daa ngom dafa génn nag ñoo ngi koy woo ci bis bi di woo kanji teedeer basiiru ka borom terrain yi nga xam ne moom it tere bu mu jaayul baaxul ñu ngi koy woo bu baax di woo ñëpp ñuy jàppale di jaalewaat ahlu làmb di nuyu fi ñu jógee muy tëngeej nga xam ne dañu nekk ci kër euh, sama euh, grand frère Lamine Gueye nga xam ne moom yàlla dafa def moom lépp daanaka ci kër gi moom moo ko yor ñu koy woo di woo ñëpp di woo di woo ñëpp daal bàyyiwuñu kenn di woo waa gasi tamit dañ fa am tuuru famille tuuru famille Lamine sa Gueye 11 février moom moo tax xam naa affaire bi dina gën a sooxe mais du ci dara am na ñaari empêchement muy final bi finalu Jibi Njaay bi encore ak tuuru famille bi waaye loolu du ci dara di sant nag mobilisation bii ñu fekk fii kontaan ci bu baax ku ñu cité ci ay tur muy Amadine di ko nuyu bu baax di ko jaare suñu xarit ko xam ne Paté Diop la moom moo tax ma xam Amadine bii danga koy nuyu bu baax di nuyu daakal bi nga xam ne moom sama bunt ci jibi mii ci moom la jaar moom tamit muy nit ku baax ku rëyul benn yoon laa ko woo téléphone mu jël ma depuis booba du ko woo moo may woo téléphone yombul ci kilifa woyof googu tamit xam nga loolu bokk na ci li nga xam ne nii pa tax na ñi gën a gën a gën ñëw bootu ci ginnaawam di ko woo nag pour mu jàppale ñu encore moom tamit encore une fois waaw. kàddu gu waaw xanaa di bu nekk kàddu cant d'abord di sant yàlla bu baax. ci li fi jot am lépp di santaat Niass Téranga di sant mbooloo mi teew fii muy suñuy am di jàmm suñuy mbokk suñuy xarit suñuy kóllëre biñ déggee ne Niass daf ñëw indil ma drapeau bi ñu mobiliser wu ñëw teewee bés bi loolu yëg-yëg bu mag la loolu fonk nit mooy tax nga def ko te am na ci ñoo xam ne fi ñu jógee sori na trop te dëkk bi xat na yoon yi sori na waaye terewul ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw li ma wax sànq rek également di gërëmaat Assane Ndiaye Assane Ndiaye su ma koy gërëm ñas laa koy gërëmal moom mi ko tam li tax mu tànn ko ci Sénégalais yëpp jël drapeau bi tuddee ko ko. loolu nit ku la yëgul du la ko defal nit ku la fonkul du la ko defal donc jàppal na Assane moomu ku la fonk la ku la yëg la ku la bëgg la di la sant également bi ñu boolee ci cër boobu mooy ñu tuddee la drapeau nga ne lii ko dama koy bokk ak samay mbokk sa mbokk yooyu nag nga tànn ma ca ma ciy sant yàlla bu baax waaye di la sant bu baax di la gërëm loolu li ki des nag mooy lancer appel rek que sénégalais yi ñu xam ne làmb lañ moom làmb lañ am li ma wax sànq rek li di ki des lépp dañ ko jéggaani xëy na ba gën ko bëgg sax nekk sosoon li nga sos nag te muy am solo muy làmb di sport di culture ñu ko gën a téye bu baax waaye di soññ également mbër yi nga xam ne ñooy bëre combat bi muy Boy Dakar ak Ronaldinho ñu góor góorlu su mën nañu góorgóorlu wax ma ci côté bëri nag côté bëri moom ku entraîné wu ba jël combat da ko bëri waaye nag ñu woote jàmm d'abord commencé ko ci ñoom woo ko ci ñi ànd ak woo ko ci ñi seetaan ci ñëpp ndax loolu def loolu rek moo di sa làmb li ki war a dekk lépp nekk na ci nañ def ba nga xam ne fu ñu tuddati làmb kenn du ko taqale ak violence ndax violence dafa yàq lu mu dugg yàq ko muy sport muy lu nekk ñu gën ko moytu te loolu nag euh, buñ ko bëggee moytu dañ ci dugal mbëri bu baax a baax a baax ci ñoom lañ ko gën a yaakaaree ndax kenn ku ci nekk boo doxalee doxalin boo wootee ñu ngay ànd ak wat woo leen ci loolu daal la ci fekk si donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal jàmm ak salaam yàlla may leen wér-gu-yaram bañ àgg ci combat ba waaye comme booy Dakar boo fi teew aussi ñu koy ñaanal bu baax a baax. yàlla na la yàlla gën a taxaw yàlla defal la ndam ci combat bi waaye defal la ndam ci combat yu bëree bëri bañ dégg la fi ñuy dégg mbër yu mag yëpp jërëjëf.